ndeysaan oh tey bis tey événement tey bis xoolal maam moor ndeysaan événement da nga koy mën événement da nga ciy liggéey macha allah ndeysaan oh lii lii yéene woon nañ Garga 2 Mama ne ci digg géew wane seen bopp ñu taalal leen ñu yëngal seen bopp supporters yi kontaan amateurs kontaan mais jaam ak pexem yàlla ak dogalam lii moo xew ci làmb ji lii moo neex suñu borom kenn du jël place yu yàlla déedéet déedéet yàllaa tuddee tey Mamor bu Faas Mamor dee yëngu moom ndeysaan ma ngay yëngu làmb ngi ndeysaan événement mu ngi nii bu tuut borom lay tollool ndeysaan ndeysaan oh ay ca mbokk yi wuroo dem na këng wax mag dem na taali dagg war mbaam lu waay doon jaay léegi mu lamb ndeysaan Mamor bu Faas ak Siteu bu Saalum ndaysaan mbokk yi Siteu bu Saloum moom nga jàkkaar lool Mame Mor moo la woon ginnaaw ndaysaan mbokk yi ñu ngi ci dimanche 22 mars wala mai wala juin mai ndaysaan sama bopp bi nekk 22 mai 2022 il est ndaysaan 20 heures 12 woon ginnaaw ndaysaan Siteu moom nga jàkkaar lool mbokk yi ñoom ñaar ngi noonu ñoo war a bëre combat spécial bi waaye ñooy mujjee bëre grand combat bi ndeysaan Mama Lamine Garga 2 mujjee wu la am Mame Mor cokkaas na dañuy xeex ñoom ñaar dañuy xeex Siteu ak Mame Mor Mame Mor Siteu ndeysaan Siteu bu Saloum ak Mame Mor Mame Mor dafa nar dem waaye Siteu da koy xaar Mamor bu demee lan la fay fekk Siteu moo ko xam crochet menton wala jàppante wala bëre ndaysaan mbokk yi ñu ngi noonu ndaysaan Siteu ak Mamor ndaysaan Siteu bu Saalum Mamor ñoom ñaare ngi noonu Siteu bu Saalum Mamor ndeysaan Siteu bu Saalum Mamor Siteu bu Saalum Mamor saay géwél la ngay dégg géwélay way géwélay tëgg ndeysaan mbër yaay xeex fas yéene bëre ndeysaan Siteu bu Saalum ak Mamor arbitre bi àtte na arbitre bi suuf la waat na Siteu bu Saalum Mamor Mamor féete la càmm Siteu féete la ndijoor ñoom ñaar ñu ngi noonu di lewaatoo Mamor jiital tànk ndijoor Siteu jiital tànk ndijoor ñoom ñaar ku ci nekk fausse garde nga jiital Mamor dóor na ndaysaan dañuy xeex doo ko bëre Siteu dóor na Mamor jëli na ko daan na ko Mamor daan na Siteu Siteu dóor na ko Mamor Mamor daan na Siteu Mamor daan na